ñu ngi fii ci kër Serigne Touba bu Colobane di dalluwaayu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké gis ngeen nit ñi nuñ fi mel ni bëri lool macha allah ñuy waajal nag ëllëg ajjuma inauguration grande mosquée Massalikul euh, Jinaan tax tey taalibe yi fees dell ci résidence su xalif bi gis ngeen ay centaine de taalibe voire de milliers ñoo fi daje tey gis ngeen rang bi aussi. nu mu guddee noonu personalité politique yu bëri tamit euh, gis nañ leen fii waaye ci biir tamit am na benn buuxante bi nga xam ne ni jéggi na dayo waaye sécurité xalif bi ak police beeg gendarme bi ñu ngi ci xar seen tànk tubéy ngir euh, lëpp yemb xanaa rek ñu doxantu jël quelques réactions taalib ñëw ci ubbite Masalikul Jinaan fii ci Ndakaaru ñu ci sant yàlla baax di julli ci yàlla nag di di sant yàlla di julli ci yonentam bi di wax ne ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam maanaam mooy Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul suñu borom yàggal ko fi loolu tam ànd ak wér noonu lañ koy ñaanal it xalif général de Baye Fall muy Serigne Cheikh Fall jëmb ñu ànd ak moom nag ci délégation bi nga xam maanaam moo jógee Mbacké ak Serigne Cheikh jëmb ak daayira Trondooy maam Cheikh Ibrahima Fall yi mu nekk loo xamee ni maanaam euh, symbole la bu ñu sëmb ci yoonu Murid yoonu Baye Fall muy Trondooy Cheikh Ibrahima yi. ñoom it ñu mànkoo dajaloo di liggéeyal xalif général de Baye Fall nga xam ne chaque année daaw jébal nañ ko un million ren it ñu bëgg suñu borom gën ñoo jàppale ñu gën a yokkaat suñu pas-pas ngir nu ñu mën a liggéeyale sëriñ Mountakha ak Cheikh Ibrahima Fall lam baabul muridina muy sëriñ Cheikh Jëmu Fall ñu rafetlu nag maanaam bés bi di ci ñaan yàlla bu baax di ci santaat yàlla suñu borom bu baax te xam ne kenn du sëriñ Touba lépp lu baax lépp lu rafet Serigne Touba moo ko moom ñu ngi sant yàlla bu baax ci biñ teewee ci bés bi nag di ñaan ci doole Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall képp ku teew ci bés bi yàlla na la sa borom jéggal sa bakkaar yu njëkk ak sa bakkaar yu mujj te réew mi suñu borom def ci jàmm def ci kaaraange gën ñoo dimbali gën dimbali ñi nga xam ne maanaam itam ñoo ŋànk réew mi ci doole Serigne Touba di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak Serigne euh, euh, Cheikh Jëmm Fall général de Baye asalaamaaleykum wa naaj bi tàng na rang bi gudd na. ah non loolu yow du dara bu dee yow xam nga yow yoonu murid ni muy defee doxee xam nga ne yow loolu du dara ñun sëriñ Touba rek moo nu ñor te boo gisee nii da nga xamante ni Serigne Touba moom wax dëgg yàlla daraam du asaar waaw Serigne Touba daal moom moom moo nu jaral lépp moom man fi mu ne nii naajoo ngay tàng naajoo ngay wax dafa tàng sax wax dëgg yàlla sentir ma ko man daal fi mu ne nii jàkkaarloo xalifa bi rek man mooy sama bëgg-bëgg waaw te mooy sama yéene waaw loolu rek daal man mooy sama bëgg-bëgg. bés bi noo leen koy waajalee. waaye bis bi comme ni ñu ko daan waajale xam nga fii nii bu su fekkente ne yow mos nga dem Touba wala dara xam nga ne fii nii mi ngi mel ne ñun ñu ngi nekk Touba rek waaw comme bu dee daa nga dem màggala Touba ñun fi mu ne ñun ñu ngi ci màggal waaw bu doonte 18 safar bu doonte amoon na beneen bis buñ koy euh, méngalee rek kon bii lay doon waaw waaw ñoon daal lañ ko dundee merci beaucoup jaajëf euh, Ibrahima Thiam ñu doxantuwaat tuuti jël quelques réactions aussi c'est bon ok sëñ bi tur bi nan la Abdou Lahad Seck laa tudd waaw yéen lu leen fi indi tey waaw ñun moom ñu ngi jógee Touba euh, Mariana ànd ak euh, soxna maam Issa Mbacke ahlu kafe ñoom la indi fii nii pour ñuy defar kafe yi xéwal yi di ko joxe fii ci kër sëñ bi ñoom lañ àndal man sama xarit yëpp ñoom Bass yi ak ñoom Serigne ñoom ñëpp ñu ànd ñoom def délégation ñëw fii ñëw fii ñu fi ñëw biig ci guddi boobu ba na ñu ci ñu ngi ci café geek lépp daal di joxe di sant Serigne Touba. wax xam ni li sëñ bi waxoon ni kon bu njëkk wala walaaw yan suru nii wala xam xottal boo nii fil baxri wa bal saana fi naa darin suñu borom dimbil na ma walaaw yan suru nii suñu borom dimbil na ma wala xam boo nii mi def toppatoon ma fil baxri wa bari saa na fi daa darin ma leen jàpp du ma leen lor tey njañ dafa mel ñëw na tey ndax boo mee ñetti guddi ndakaar mi dafa mel tey ji moo ko jural lii mu am nii muy Masaalikul Jinaan ndax place la boo xam ne ñu ko bëggoon bari na lool ñu ko bëggoon nit Eh, fi ko bëggee woon bari na lool waaye suñu borom da ko nëbal dajal ko kiiraay ba tey ji mu wane ko kon ñoo xam ne sëñ Tuubaa kon yàlla fay na ko ñu gën a sataat sëñ Tuubaa baax a baax di ñaanal Seex eh, sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy suñ bunt sëñ Tuubaa suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ndax ñun day réccu ñu ànd ak moom te wax dëgg fa yàlla day waa nañu ak teel boobu bu mat sëkk ndax wax dëgg yàlla boo gisee lim sombi eh, fii muy Masaalikul Jinaan ak université bi nekk bi nekk Tuubaa nga xam ne kon sëñ sëñ Tuubaa tànk kanam la am waa am tànk ginnaaw. teewaay bi dem mooy am mbégte rek euh, ak kontaante am mbégte ak kontaante ndax lu toll ni Masaalikul Jinaan ñu war ko tijji nga xam ne ñun murid yi ñoo ko tabax mbégte gi nag mooy dafa am lu xew loo xam ne ñu bëri xañ na bàyyiwuñu si xel ndax Sëñ Tuubaa bi ko Tuubaa bi jële Ndar di ko in Ndakaaru nga xam ne boo weeru koor la tombel bi mu ñëwee Ndakaaru rek war a dog dañ ko ñëwal. am na néeg bu neexoo bu neex a jaamoo yàlla aw jël ko dugal ko si dugal ko si benn néeg boo xam ne ay rab ak ay lu ne fa keroog nag suuf sa jooy jooy gi noon jooy nga xam ne suuf si Ndakaaru jooy na téeméeri at tey tey jii la su la suuf si bëgg tey ndax lii nga xam ne maam la fi muri yi defal Serigne Touba nga xam ne nga xam ne maam Serigne Touba keroog bi mu ñëwee Ndakaaru nee na li mu taxaw jëmatu fii Ndakaaru waaw bayit bayit woowu tey maam maam mooy li ko yàlla mooy li ko yàlla fay rek boo nekkalee yàlla man kaa ngi leexi kaan la loo ku nekkal suñu borom suñu borom nekkal bayit woowu Sëriñ Tuubaa ngi si wax naan dinaa ñëwaat Ndakaaru waaye Muntaxaa moomu moomu moomuy ñëwal Ndakaaru li Muntaxaa wax joxatu fi Ndakaaru kan maam sin bi tey maam suuf suufu Ndakaaru tey bég na tey bég gi bég nag mooy ñun murit yëpp takku nan lépp lu am def nañ ko si Masaalikul Jinaan man mii de wax yow ànd naag ma téeméeri nit ñoo nga Masaalikul Jinaan di segg kafe par exemple depuis dimanche bi léegi ñoo ngi fa te ñun ñëpp liggéey liggéeyal suñu tubaab rek ñu ñor suñu bakkan bi bu ko bu ko sin bi soxla ñu jox ko. teewaay du leen lu bëgg ak euh, sant sëriñ bu baax a baax ngir xam ne lu mel nii ñu def ñun ñu def ko fi ñun jullit ñëpp lañ ko fi defal te ñun ay ay jullit lañ bépp immigration boo xam ne dafa concerné lu jëm ci jullit ñun dañu am sawar lool ci teew fa. lu mel ne jumaa ji toll nii nga xam ne ah, néew ma Sénégal mais àdduna bépp ñu ngi koy seetaan di ci bàyyi xel muy sagub islaam Sëñ Tuubaa nag moom amuñu fayam ñun ñëpp ñun ñëpp ñun murit yëpp buñ boole woon di ko di ko sant sant gi day tuuti da ciy gàtt yu mel nii rek lañ ko mën di defal di yëg ne ñu ngi koy sant mooy li mu bëggoon muy lu mel ne da juma ak ay daara lu mel ne université ba ñu waajal tamit sa Tuubaa yu mel noonu lañ yëg ne buñ ko defee dinañ ci mën a sant sëriñ bu baax a baax